émotion bi may ressentir ndaxte ñoom rose yi leer na sëriñ Touba joxuma leen ñaar kon bu ñu demee ba mën a cotiser seen bopp defar ndogu seen bopp yéene ko ba def ci sama cadeau indil ma ko mbégte kese la ndaxte am na ñoo xam ne nii ñemewu ñu jàkkaarloo ak seen population ku ñu seen daw loolu daluñu ñun jamono ju ne rek li gën a jafe nag mooy am ay ndaw ñun amuñu ay client dañu am ay militant amuñu ay amuñu ay client de sunu dërëm du génn fayuñu kenn ñun demuñu sumb jun wutuñu ñu fay pour ñu ñëw escorter wutuñu fenn ñun sunu ay doom doomu gox bi ngeen xàmmee leen ku xool xale yi xam ne duñu ay vagabond ku xool xale yi xam ne taxawaaluwuñu xale yu am maanaa la ñu àndal xale yu dëkk ci dëkk bi la ñu àndal bëgg dëkk bi la ñu àndal fas yéene ànd ak man ñu dellu liggéeyaat Médina Médina nag li koy liggéey xol bu rafet bu laab lay doon Médina maa ngi leen ñaan yéen jeunes yi bu leen bokk ci jeunes yi ñuy fay ñuy défendre li nga xam ne mooy defar mi ñooy yàq Médina Médina saa yu yàqu am na ñoo xam ne lu muy yàqu-yàqu doo leen ci dégg bâtiment yaa ngi bëgg a daanu déggu leen ci ñu ci wax dëkk baa ngi ñàkk liggéey déggu leen ñu ci wax mais à chaque fois lépp lu ñu war a defaree Médina di nga dégg ñu ñu fay ñu wax ci Auchan bi ñu tey Auchan bee tey ña leen wax naan bu mu fi ne tey ñuy jiitu ci Auchan ba bu des jërë bi tey ñoom ñoo ciy jiitu école yi ñu defaraat tey seen doom yi ci judd ak village yi tout petit yi te bu ci nekk amoon na ñu taxawoon bëggoon koo gàllankoor maa ngi leen di wax ne man sama mission kenn mënu koo arrêté Médina mu neex mu naqar dinaa ko defar nit ñi nag daf ca am ñoo xam ni dañoo naafiq ay ndaw bu ñu juumee da leen di teg ci yoon jàngal leen wax leen pour ëllëg ñu mën a nekk ay leader ay ndaw bu ñu ñëwee foog ni yaa leen ëpp xam-xam wax la waroo nekk naafeq mel ni di ëf di mat te nga nekk seen gannaaw wax ji fan la jëm fan la wax ji jëm man de su ma nekkoon seen place ay ndaw ñëw na wax nañ ma liñ ma wax dama naan leen pétition mënul annuler délibération délibération mooy li sut ci loo xam ni moo yor commune moo sul arrêté moo sul lépp ndax délibération ndaw yi nga xam ne Médina moo leen tànn ni yaa yor sunu kàddu yaa ñuy dogalal ñoo ñooñu ñoo toog dogal ko kon groupe bu nit mënu koo dindi bu doon loolu kon ñi taxawoon ni Sonko kenn leve lever immunité parlementaire def ay pétition kon su lu mat moins de deux cent euh, députés duñ ko dindi xale yi da ngeen naa leen da ngeen di demaat ci ña ko voté woon ngeen ñaanaat leen ñu dajewaat ñu dindi loolu changé ko defe ko nii damaa bëgg ñëpp xam ni man duma ma recevoir ay wax yu ñàkk fayda parce que lu tax du ma ko recevoir ñu leen dëgg nañ leen wax ni nañu woo ko ñu li ñi ñuy wër kenn amu ci maqaama ñëw ci mairie bi di ma jox ndigal ñi ñuy wër dañuy perdre seen temps ñemewuñ ma sax te yebuñu ma xam nga tey lu ñu waroon def ma conseillé leen man bañu ma négocier ñu ma waxtaan xale yi lañ ko doon defal mais nañ dem seeti waat conseil municipal yi ñu leen tey ngeen a waxtaanaat changer délibération bi defe ko ni mais ko yaakaar ni pétition mën na arrêter délibération da ngay nax sa bopp te bis bu ñu ci yàqee lenn ñun xam nañu ñen la dinañu def une plainte pour destruction d'un bien appartenant à autrui am na foo xam ne bu fa jotee xam ni tàppet ñëw fi dinaa defanteeg ñoom ba mu saf wasalaam